jërëjëf mbokk internautes yi jërëjëf mbokk internautes yi. Naby Vision démb ak tey président dafa posé ñaari acte yo xamné yu jar a saluer la muy président Bassirou Diomaye fay dem na Guinée gis ngeen ko bi mu ñibsee aéroport protocole biñ doon faral di gis dara amu ca parce que lolu mom moko téggi moné mom buy ñibsi jarul ñuy mobiliser les personnalités de l'État di leen indi pour rek ñukoy tertu ndax moment bi nga xamé né mën nañ koy di tertu war nañ mëna am leneen luñuy dem defi mu téggi lool motax demb bi mu jógee Guinée Bissau gis ngeen aéroport danaka kenn néku fo won lool dafa bokk ci li woné né ñi dañoo jog pour liggéey benen acte bi mu moy gis nga 1 premier mai di férié ñëpp tok seen kër yi di noppale ko moom mu ngi ci allu Cees bu tang bi ci domaine Mbourkat parce que zone boobu dafa bëri litige foncier dafa bëri ay problème ci wàllu suuf si mu dem ngir gisal boppam te loolu yaakaar naa ne mooy taxawaayu njiiti réew ëllëg ngay toog ñu lay jox ay rapport doo xam rapport yi ndax rapport yu dëgg la doo xam ndax ah dañ ko falsifié la ca gën a wóor mooy nga sol say dem ba ca terrain ba gis la fa xew tey loolu la def loolu nag day wone ne ñii nguur jiitalu leen ñii nguur uwul seen bopp dañoo jóg pour liggéeyal askan wi dañoo jóg pour defar Sénégal léegi nag boo gisee ku mel noonu muy def lu ni mel yow en tant que sénégalais Sénégal ñor la la nga war a def mooy jàppale ko ci loolu ba keroog ngay gis leneen lu saafaan ñun loolu moo ñu dugal ci lii dañu gis ñu xam ne dañoo am pour liggéey ñu soxla doomu Sénégal bu nekk ñu jóg di ci jàpp bés bu ñu wàccee yoon woowu it ñu dénoncé ko comme niñ ko doon défé ci yi Macky Sall Sénégal dafa tollu il faut que les di sénégalais nga dugal sa loxo ci liggéey bi pour mu nous buñ ko président de la République buñ ko Ousmane Sonko premier ministre buñ ko bayé nous nañ xamné Sénégal c'est pour tout le monde ñepp wara le Sénégal pour mu dem loolu gis nga buñ ko defee rek. réew mi vision. ñiti réew nak la koy dolel moy askanam ñetti nit ak ñenti nit yi ngañ amul problème ils sont dans leur rôle parce que amul benn doma aadama buy wacc ci suuf ñep ne la gongo ndax dañ koy waxé sen bànneexu bakkan bax dañ koy waxé sen intérêt c'est leur problème c'est leur droit nañ leen ko bayil ñi tontu it am nañ droit tontu waaw. bu ci kenn gars nañ noppi bu ñu faale ñooñ déedéet boo amee ay ay ay ay ay ay ay ay ay waxkat mu am ay tontukat waaye li gën a am solo mooy ñi nekk ci réew mi ñu ngi am volonté pour defar Sénégal Farbangom, 300 terrains la yor ci Mbour aujourd'hui le premier mai fête du travail son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye jànq ci naaj bi ànd ak ay quelques oto ak chef de protocole ak sécurité dem en personne watch sur le terrain ci zone 4 Bob, mooy Mbour pour inspecter travaux yi fa ak domaine foncier bi fa nekk ak problème yi muy pour régler la situation définitivement tey foofu nga xamante ne si moom lañu nekk di caxat caxatee zone classée la woon maanaam kenn mënu ko woon utiliser Macky Sall moo ko déclassé par décret may leen occasion Farba Ngom ak ay àndandoom ànd di ko caxat jaxate ak ay inspecteur d'impôt ñoom ñoo koy bokk ñoo ko seeq caxat caxatee su subam mooy loolu léegi nag loolu moo tax son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay jël dogal dakkal bépp travaux boo xamante ne mi ngoon ci côté littoral bi muy Dakar Thiès Saint-Louis et Mbour loolu mooy li ko waral pour régler problème bi définitivement parce que lii dafa ëpp dafa ëpp trois cent terrain nan nga ko mën a yore nan la ko nit di doyee nga bëgg ko yor ci réew moo xamante ne si nit ñaa ngi bëgg fu ñu dëkk mënuñ faa dëkk lii dafa ëpp lii dafa ëpp mbokk yi ñu bari yegg nañu ni amna rapport cour des comptes bu génn ba épinglé maître Moussa Diop maître Moussa Diop bobé ma leen di wax sax ci waxtu bi ñu nekk mi ngi def conférence de presse waye bala ma ñew ci lolé li rapport bi te bind ko ci français ma tek ko ci wolof mbokk yi ay ca mbokk li rapport bi bind ci walum société bobu di Dakar dem dik té maître Moussa Diop séré won ko nénañ dal mom auto bi mu don dawal di directeur général bi mu ngi tuddu Nissan Patrol di jar 58 millions francs CFA ki di secrétaire directeur général bi di dawal oto bo xamanteni Toyota Prado VX la di jar 38 millions francs CFA ki di yenen directeur yi ñu ngi doon dawal ay oto yo xamanteni ay Hyundai Santa Fe la 2019 di jar 27 millions 500 francs CFA. upload pareegu ma dem mbokk yi kii di chef de division bi mu ngi doon dawal oto boo xamante ni Hyundai Tucson la ñu koy woowee di jar dix-neuf millions cinq cent francs CFA jeexagul de ndax yeneen cadre yi ñu ngi doon dawal ay oto yoo xamante ni Hyundai Creta la ñu leen di woowee di jar quatorze millions cinq cent francs CFA low ma àggali mbokk yi rapport bi bind ba tey muy maître Moussa Diop moomee doonoon directeur bi oto bi mu doon dawal te ma limal leen ko léegi dañ koy woowee Nissan Patrol V6 essence puissance bi toll ci loolu rek jalgati na yoon ndax article 9 dafa ne DG bi oto bi mu war a dawal warul dépasser 14 CV gannaaw bu ñu jéegee directeur général bi secretaire général bi fukk ak benn directeur yi ak 28 chef division yi am na 14 autres cadres yoo xamante ni bénéficié wu nañu ci privilège yee ci ndoddu sénégalais yi maanaam daal bu ñu ko xaymaa woto yi tolloon na ci 1 milliard 104 millions francs CFA sans compter nag intérêt bancaire yi ak frais de dossier yi assurance tout risque pendant cinquante ci waxtu woowee entreprise bi mu ngi doon dund ay métit ci wàllum carburant beeg salaire yi mi ngi noonee mbokk yi du samay kàddu nag rapport cour des comptes bi moo ko ne fàng ci penc mi ñu teg si suñu bët jottali ko askan wi te comme ni ma leen ko waxee maître Moussa Diop moomee mi ngi def conférence de presse waxtu bi may waxee génn nee na nag weddi na ko nee na moom teg na lépp ci yoon kon nag du moom ak moom la yow la wala du yow na yoon def liggéeyam gannaaw bi rapport bi génnee kon justice askan baa ngi lay xaar ngir mu leer. waaw genre Magal di leen nuyu patriotiquement di wax ne rek kenn mënu leen a kenn mënu leen a cerner certains sénégalais yi nga xam ne ñoo di woyal seen bopp ay opposants parce que à chaque fois bu ñu yeewoo rek il faut que ñu gis benn campagne de euh, désinformation boo xam tey samte dafay pousser nit ñi à ce que ñuy benn benn indiwaat seen jikko bi nga xam ne moom la ñu amoon bien vrai que du ñu saaga du ñu xaste ay faits réels lañ leen tegal maa gis nag temps yi journalistes yenn journalistes ak yenn paa yu ñàkk fayda yi nga xam ne nekkee woon dul campagne. paa yu ñàkk fayda nga xam ne nekkul dul ci campagne de désinformation. parce que maa ngi déglu benn paa mu ne yoo yaay journaliste la muy traité de menteur ki nga xam ne mooy seen Ousmane Sonko Ousmane Sonko du la tontu parce que talu la instant bi toll nii au chevet des Sénégalais la nekk. tey le premier bii nii mu ngi doon recevoir li nga xam ne moom mooy travailler yi lan lañu wara def instant mu tolni mom ci lolou lay dox instant mu tolni yeen nek len nekk ci li ngeen nek di dul ñu nek seen ginaaw yeen tay instant mu tolni yeen man dama tok ba ben moment bo xam dama nan yeen ni tay instant est-ce que jar na ñun ñu len di tontu ñun ñi nga xam ne wuñu dara ñun ñoo len di tontu gaay ci liggey bi ñu nekk ni nañu ci nekk gis nga son excellence basirou Diomaye fay gère l'état so premier ministre monsieur Ousmane Sonko gérer ce gouvernement ñun ñi nga xam la ñoy lay patriotes yu tekkiwu dara yi dinañ répondre ces émergumènes ñi nga xam dañuy wootee seen bopp ay kilifa xawma nan bu soo jeexee nga xam ne que carrément barki barki dem la fi toog naan ay Pape Alé Niang fenkat laak nangama saa mais ku la dàq fen amul parce que yow li man bi ma la dalee di déglu ba tey musuma laa dégg nga wax lu doon dëgg ci Abdoulaye Wade nga ko commencé woon di ko menacé di def yenn yi di lijjanti sa poos bu ba tey yow xamuñu lan lan lan yow lan nga apporter sénégalais yi loo xam tey sax mën nga ko teg ci table bi kon nekk leen ay nit ngeen xam ne xa ñun amatuñ seen complexe tey monsieur son excellence mu ngi xam ne mi ngi fi nga xam ne mooy mbuurkat

bu buñ la waxatee benn affaire nee bul tëb tëb rek joxe sa accord foofu déedéet delluwaatal nga demaat toog ba ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy les acteurs ñëw toog ak yow wax ak yow nga xam fi ngay teg affaire yi mais boo teelee jox ñenn ñi accord rek erreur mën naa am te ñu ngi fii nii pour yéen lu ngeen def d'accord nañ ñu ñoo leen fal te on aura le temps danañ leen bàyyee temps aussi boo xam di ngeen liggéey li ngeen war a liggéey yëpp danañ leen protéger incha allah rabbi képp ku taxaw ci réseaux sociaux yi fenn comme que ñun amuñu liggéey amuñu parti amuñu place amuñu amuñu dara ñun ñu noonu patriote yooyu dinañu toog tey instant bu ñu toll nii tey li nga xam ne moom ngeen bëgg ñu ñu leen ci doxal mooy que carrément dinañ leen protéger fi ñu leen war a protéger yéen fi ngeen ñu war a féete mooy ci kër gi ngeen jéem a xool ndax ngeen def ba titre foncier yooyu noonu mu teguwaat ci yoon bi sénégalais yi mën cee am fi nga xam tey instant bu ñu toll nii ay këru jàmbur la woon wala fi nga xam ne ay ay ay terrain la woon ay borom doole ñëw nangu ko caxat caxatee ko jox ko ñi nga xam ne mérité wuñ ko wala ay ay nit ñoo xam ne ay lañ jugee fële ne ne ñëw am ci dëkk bi loo xam ne doomu dëkk mënuñ ko am concentré wu ci loolu nekk leen ci loolu te bu leen kenn woo ci télé yi pour ngeen dem naa da ngeen di expliquer amul leen lu ngeen expliquer ñun ñoo leen sant liggéey leen ñun ñi nga xam ne ñun mën nañoo tontu danañ leen tontu incha allah rabbi ñi fi nekk tey instant toll nii di opposé opposé wulu ak journaliste yi fenn yoo xam tey ñëpp xam nañ fu ñu féete xam nañ fu ñu féete woon démb ñëw tey ne dañuy jéem a indi ay ñol yoo xam ne yéen da ngeen a yaakaar yéen ñu gën a muus quoi wala li ngeen di def yéen ñun xamuñu ko ak ñoo xam li ngeen def bu ngeen reewee ñu tontoo leen tontu reewaande bu ngeen yaroo ñu tontoo leen ci xam-xam mais boobu ba tey waxu dof rek ngeen fi wax ay dañuy paacoo ñoo tey paacoo ñun xaaruñ ngeen du xool lu leen neex pour ñu def ko Seydina Ousmane Sonko bu la neexee jëlal ay dawal ko sareet sax nga def leen ministre on est content ñun kontaan nañ ci yéen Diomaye Faye bu la neexee tey instant jëlal ku la neexee def ko DG on s'en fout li l'essentiel mooy que li ñu bëgg mooy liggéey bi ngeen bi ngeen wax ne da ngeen ko liggéey liggéey leen ko rek yéen ngeen ñu leneen li ñun suñu bopp ay paa yu naa jàpp yoo xam ne toog ci télé bi Ousmane ma fi tax benn paa di la may bës mais yéen ñi may waxal ñëpp gars yi xam nañ leen te xam ngeen bu baax a baax ne yéen laay waxal opposants yi moom yi nga xam ne c'est des émergumènes ñun ndaw ndawaan yi nekk ci TikTok beeg ci réseaux sociaux yi naan non dañ maa attaqué nag patriotes yi kenn amul pour attaquer leen kenn attaqué wu leen ci ay fen ngeen nekk ak ci ay manipulation mais ku fi taxaw wax loo fi war a wax ñu génn wax la lu ñu la war a wax te kuñ ci jàkkaarloo nga taxaw wax ñu ka ñu noq la c'est ça le truc quoi amatul fenn lu ñuy def ne te procureur de la république procureur de la république yow mi nga xam ne yaay procureur de la république bàyyi sa xel bu baax a baax a baax li nga xam ne moom lañ doon waa jooju doon teg du ma tudd turam képp ku fi rewantal wala ku fi génnee benn wax boo xam te exemple da ngaa war a génne ay preuve génnewoo ko article 80 bi day dal sa kaw képp ku fi diffamé nit mu la nekk carrément li nga wax dëgg defal nañ ko jëli mu ñëw leeral li muy wax dëgg la wala dëgg ñi nekk ci prison yi ngeen génne leen ñu dem bay ji ñi nga xam ñoo fi nekk di fen ñu ñuux leen ci biir prison yi parce que amuñ fi njëriñ ndax ay yàqkat lañ ñoo raw kaña wala golo ci biir bi biir tool konaar yi ngeen doon yéen jéemu leen sax ne yéen war ngeen a mën a taxaw sax xool li nga xam tey intérêt wu sénégalais yi la ngeen taxaw ci déedéet mais yéen à chaque fois yéen a ngi xool loo xam ne luy yàq la ngeen koy jéem a wax ngeen yaakaar dinañ leen ci bàyyi yéen a ngi nax yi nekkoon fii di xam nga Ousmane Sonko dafa bari noonu ba léegi tey ay noonam tey la gën a yokk naan rapport amul ndekete rapport Prodac amul yéen yéen a gën a tey ni rapport amoon na man Sénégal laa gis nit boo xam ni yow nit càcc say milliards nga taxaw yow di ko défendre moom moo la gën yow milliards yoo xam ne yow tey say sël mën nañ ci jariñu moom mu tëdd ci yow nga taxaw di ko défendre ngir bañ benn nit ngir yow da nga bañ Ousmane Sonko tax ngay défendre Mame Mbaye Niang ki sàcc say milliards ak ki nga xam ne moo taxaw di la défendre milliards yooyu pour mu ñëwaat ci yow yow ngay mere ki nga xam ne moo lay défendre yow sa intere réew di faral ki nga xam ne yow moom gëmul sa réew da ngeen xam ba xam rapport amna wala amul xaar leen tuuti Mame Mbaye Niang lu raw rapport moo koy épinglé. sàcc biir la naa fekk yi ngeen doon naa fekk baaxul. information information information information président Bassirou jomay Diakhar fay nit ñangi teud seen kër ñu ne tay fête de travail genn dem na kat pour dem lijjanti ji euh, ki euh, fonci bi dem na lijjanti titer fonci ak souf ya ñoy jaay mbuur président Bassirou jomay fay nit ñangi teud seen keri nan dañu am fête de travail mom mu ngay travail mu ngay liggey dembu bi mu demee guiné dañ ko jox euh, protocole bi da ko jox ki papier bi pour mu signer affaire bi naw mu ñew diko won wan fan la wara signer man Sénégal la gis dañ lay fal ba pare di la éñaane bëgg nga échec ci réew mi ci laa ko gisee te fii ku ko fala ku ko falu ñëpp dañoo war a bëgg pour mu dem mais sénégalais bon na bon goo xam ne nii fal ni ki bëgg mu échec loolu président euh, ñun la rek waaye tubaab bi ñoom ñooy ñëw wan la fi ngay ci yow sa bopp duñ la jox kayit gi sax te lii nii lu nekk yoon la mais wax kat moom kenn mën ta fexe ba du wax dégg nga te ku ca gémmiñ di nàcc doo wax jàmm ji nga ñuñ dénk dañu xam nañ titre foncier xam nañ ko xam nañ suuf littoral bi xam nañ ko lu ci waay def ci suuf danañ ko danañ ko lijjanti lu mel ni mbiri laa wax boo xam naa leen bu leen karo bul tawax bul muul bul fa juur suuf terrain bi yow comme moomoo ko bu ci def noonu yëpp xaay bi nga yor jënc ko boo ko karoo dañ koy toj boo ko paawee dañ koy toj boo ko miiree koy toj jaru nga fay samp benn su jóor benn béton moomoo terrain bi bàyyi terrain yu jàmbur foncier titre foncier yi ak réew mi suuf si lañ ko du sotti lu mel ni mi di laa la wax Give nak buy nacc borom do wax jam ni ñepp nga tëdd seen kër yi naan fête de travail man ma ngi ni di liggéey farim sira fala nga sira souru waye sénégalais la gis buñ ne ndox tok do du genn buñ ne feet suba lay xam buñ ne suba lay xam lay commencé ba souru président ba ngay liggéey dem leen ngeen liggéey rew mi liggéey la laaj drapeau ba ngay floté suñ drapeau bi dafa taxawon tem way kenn bañ joxee rew mi nit ñi la drapeau bi commencé di floté comme bu amérique bi liggéey leen ngeen bayyi ak wuyu ak bandi barke alquranul karim yi ñu jox suñu réew mi nii xale yu ndaw lañ seen deret ju tàng jër lañ yor xamul naaj bu tàng xamul bopp leen métti yàlla nañ gudd fan président Bassirou Diomaye Diakhar Faye président Ousmane Sonko ay xale ngeen jox réew mi waaye mag ñi nga xam ne dañ daan nelaw buñ nekkee ci kilim bi bu tàng bu seddee ñuy bëgg a dee bu génnee ci naaj bu tàngee ñuy bëgg dee ay màgget yu xob yi daal yu yàq réew mi lañ lu mel ni midi laa leen wax ah littoral bi nangu nañ yëpp waxoon naa leen ko bu leen karo dañuy toj kër yi dañ leen di maasale tey nag mbuur la dem mbuur moom lañ tabax ci peeg géej géej yëpp buñ ci bàyyi dara lépp luñ fa tabax loo xam ne waa APR ko moom nañ tasaare ndeyam nañ ci xolaat nañ raase ndeyam tuubu wax naa la ko wala ñu yóbbu leen fa ndeyam ñu wekki mool yi benn par benn xolal naaj bu tàng jër nag lañ leen fa yóbbu nañ bàyyi ba 11 jot ñu yóbbu leen fa ñu koy wekki ñuy wàcce mool yi benn par benn immeuble septième dixième mbuur ak Thiès ak euh, lépp lu bokk ci géej Sindiak Euh, kii fii nu mu tudd fii nii aéroport bi nekk jas yooyu gën a garaaw foofu lañ fa taxaw ci immeuble yoo xam ni di dem leen rek toj ndeyu kër yëpp ngeen xam da ngeen di font lu mel ni midi laa leen wax waaw waxkat na da nga leen seetaan ñuy wax waa per moom waxa leen dese te opposition boo ko bëgg a def quinze ans da nga sonn ñun moom la ñu wax. réew lam wax moom ku noppi yaa perte waaye lam bi jëf itam ku fa noppi yaa perte ñun ci jëf ci lañ nekk lijjanti réew mi ba na ne ci ne jot ci lañ nekk wasalaam information baa ngi